MKR menuiserie Khadim Rasoul di entreprise buy yëngu ci wàllu meuble nekk fii ci Sénégal di defar ay lal yu amul fenn ay canapé ay fauteuil yu rafet yu dul gis fenn ay meuble yu méngoog jamono ay meuble yi nga xamante ne day bàyyi xel mbas mi maanaam dandante gi distanciation lu ci yi dañuy bàyyi xel hygiène maanaam set gi ak ay anam yu mucc ayib yuñ koy defaree te meuble mën naa dem fu ne ci ay salle d'attente ci ay aéroport ci entreprise. ay établissement fépp foo xamante ne rek nit ñi dañ fay daje meuble MKR mën na fa nekk te itam wóor na te dëgër na te itam ay ndaw yu nekk ci réew mi ñoo ko defar ñu seen xel màcc lool ci mbir ma ñoo ko xalaatal seen bopp defar ko ci anam bu mucc ayib mu doon made in Sénégal daw si leen gaaw ñëw seet suñu ñu defal leen xéewal gu mucc ayib. jafewul a jot parce que boo xoolee ñoom li ñuy def ci importation bi ak lii bokkul li ñuy def te meuble yi lu muy dund ak ñoom li ñuy indi bokkul. parce que meuble boo ci am benn bu ne bu ñu yow 30 ans nga am benn meuble boo jëlee bitim réew mu def ak yow un an wala bureau yeeg yëpp ak yeneen affaire bon loolu tamit sénégalais yi war nañ si gën a yeewu toujours ñun ci lancé boobu lañ nekk ci loolu lañ mos a wax ci loolu lañ a nekk te pour ñu gën a góorgóorlu jàppale sénégalais yi DMTA gën a liggéey ak sénégalais yi état bi gën a liggéey ak sénégalais ñu gën a wóolu suñu bopp mu koom bi loolu laa mos a wax ci loolu laa mos nekk dama nekkaat di ko confirmer rek ci kàttanu yàlla quoi suma xam-xam suma doole mais ci ndimbalu yàlla ñoo ne ni tamit yàlla mën nañu may ñuy xalaat ci màggaayam quoi. menuiserie Khadim Rassoul ñu ngi rue 9 angle corniche ak ca Sodida mën nga ñoo jot ci téléphone ci 77 724 33 41 wala sax suñu mail mkr sénégal arobase gmail point com Khadim Rassoul l'innovation dans l'authenticité